ndamul daara yi amoon mooy fexe ba li nga xam ne dañoo am daara doom yi dañuy yelwaan ñu yombal leen eh, yelwaan ji mooy jënd ay ndab teg ko ci kër yi borom kër yi bu ñu tibbee yàq tibbal daara ji yóbbul ko <laughs> loolu tamit tamit def nañ ko ndaamartu benn ñaar ak deux daal mu dem benn ak juróom-benn waaw waaw <laughs> loolu ci ci juróom juróom junniy bool dafa mel ne jotoon nañ ko cee fàggu ba yóbbu woon ko waaw yóbbu ci bool waaw waaw nga xam ne moom léegi donga bi dañ ko bàyyi ci kër gi rek bu ñu yàkkee rek ci te ci bool bi bu bëri yëpp yóbbu ko ca daara ja waaw dong yi ko bu ñëwee eh, bokk ko waaw alhamdulilah waaw liggéey bii réeni si man waaye nag eh, woyof na xam na ne sëriñ sëriñ bee ngi ci suñu kanam mm-hmm. barakat yi barakat yi <laughs> mbokk yi wa rahmatullah ñu ngi leen di nuyu di leen ziar Touba ca kanam ci mbooleem yëngu-yëngu yi nga xam ne daf koy def te amul benn barab boo xam ne bàyyi na ko wérgu yaram assainissement naatal Touba leeral Touba ba ci éducation day tabaxi daara yemu ca waaye Touba ci kanam ak commission scientifique dañoo sos lu yees tàq muy ndabu daara Sëñ Fallou Gala si la ndabu daara di ay ndab yu bees tàq yu Touba ca kanam jënd séddale ko ay daara ngir dong yi jàng rek di seen yitte daara ju nekk bool bu nekk dana am kër goo xam ne ca lay dem bu waxtu xew lu jotee ñu tibb ko indil ko daara ji loolu nag moo ñu indi fii ci ndaamaatu ñu war a dugg nag ci biir daara ji xool dëgg-dëgg njëriñal ndabal daara gannaaw bu ñu jàkkaarloo ki nga xam ne moo yore daara ji sëñ Fallu loo ci wax. ok sëñ Cheikh jërëjëf. Mhm. ndabul daara moom ku jaar ci daara xam nga ko ndax ndabul daara bàjjani daara moo ko daan tibb donc bu nekk am nga kër goo nekkoon boo xam ne da nga fay am sa bàjjan wala sa ndeyi daara mhm. su fekkee ne ba jamonoy taxan di xew la nga koy taxanal sayu mat moom mu lay tibbal añ wala mu lay tibbal reer hmm. loolee nag sarax la boo xam ne donga bi dinaa dem di ko jëli hmm. léegi nag sarax bi ci bopp lañ bëgg mu jóg di fekk si donga bi hmm. te it yàlla la sarax bi bu waree fekk si donga bi moo tax nag Touba ci kanam wut ndabul daara séddale ko ci quartier bi kenn ku ci nekk sarax ba nga waroon a sarax donga bi mu ñëw yàllaan si ko diggante boobu mën naa jaar ci mbedd mi gis lu ko yàq diggante boobu mën na cee tardé am njàng hmm. léegi nag nga ne ko bàyyil ma fa fab sarax bi yët la ko yow kon na ci sam njàng nga xam ne xewul dootul doon problème dootul doon problème day toog ñu ko indil day toog rek ñu dugg ko yët kon ñu dugg ci biir Bismillah xam mhm. ndab yi ñu installé woon ci gox goxaan waaw ngir ñu yombal liggéey bu rëy boobu nga xam ne gis nañ ñu mhm. ko sëñ Muntaxa mhm. euh, feddle solution bu mag bu Touba ci kanam bëgg a ci dëkk bi ngir yow mii ni ko yonent bi alayhi salaatu wasalaam wax nit ki buy saraxe da ngay fexe ba sa loxo ndeyjoor lu mu def sa loxo càmmoñ bañ koo gis innal musaddiqina musaddiqina wal musaddiqaat wa aqradullaha qardan hasana Touba Ca Kanam nag ñoo bëgg leen a yombal mm-hmm. jëf ju baax jooju ñuy def muy ab mm-hmm. sarax mm-hmm. ngir tuyaaba yi gën a mën a sakkan gën a mën a rënku muy benn poñ bi ñaareel bi it sécurité gën a am ci gone yi jàng ci daara yi léegi gone gi génn war dugg soit jàng si trois heures wala yu demee noonu yelwaan xamul fan la koy amee léegi yow mii saraxe yaay tibb bool bi indil ko ko ndànk macha allah moom mu dem jëli ko indi ko ndànk ci daara ñi mën a lekk sécurité am ci donga yi sarax bi mën a gën a mën bi it gën a mën a hmm. solution boo xam ne gis nañ ne hmm. eh, nguur yeeg yëpp def nañ wutoon nañ ci ay hmm. xalaat waaye solution bi ci Touba ci kanam teg moom yaakaar naa mën naa mën naa xeex yàlluwaan bi ak taxawaalu gi ñaar yëpp mën na jox ngeen ko yitte de yéen a ngi tabax ay daara yemu leen ca créé ndabu daara yemu leen ca hmm. sous commission sax ko sosal jeex na kon fi ñu toll ndab yaa ngi ci biir ni ndab yi dañ koy buñ ko tibbee dañ koy indi waxtu xewal fi ne yàlla def na sax fi ñu tombe mhm. ci suñ daara yi am mhm. na ci ñoo xam ne réflexion di daara jaar na macha allah daar daara yi ñuy defaraat. Touba Ca Kanam def na réfection daara ñu ngi ci deux cent soixante six daara. yoo xam ne Touba Ca Kanam defaraat na. defaraat na ko pare. macha allah bokkut ak ndabal daara yi nga xam ne. fu ne mhm. amagun nañ cent cinquante neuf daara. Mhm. yoo xam ne. Mhm. Eh, yalwaan bi ndab yi àggagul na fa. macha allah tey ndab yu bees sax lay doon. ay ndab yu bees sax yoo xam ne waaw kay am solo <laughs> ñu dugg ci daara ji xool ba xam. bismillah kon mbokk yi sëriñ daar yi ngi nii ngir gën a yombal liggéey bi daanaka ndabal daar am na ñetti sëriñ daara yoo xam ne daje nañ fii ci daaray sëñ Daraw Gassama mii lii nag yaakaar naa ne ñoom ñi nga xam ne ñoom lañ koy defal ñoom ak ñi nga xam ne ñoo ko def ñëw di ko xayma si sëñ Daraw hmm. lan nga nu mën a wax ci hmm? lii ndabal daara lan la jëriñ ci daara ji njëriñal lii nag njëriñ lu am solo la loo xam ne dafay wax ne ku xamoon li ci nekk da nga ko def waxuma la njëriñal donga bi añ waaye am na yaar yoo xam ne nii fi mu ne jëlee na ko fi mooy dong bi jëlee ci tumu ndax bu waxtu aj bi jotee fi mu ne yaa ngi gis boole nii dong bi lum naajee naajee naajee tari xam na kañ lay añ day dem rek jëli mu ñëw bu reer jotee noonu lum xiin xiin ba mu dong bi mosaan xiin bo day day jàq ndax du xam fu muy reere waaye te bu doon taw ken ku ne xamoo fa sa ndey daara nekk fa ngay dem dem jëli bool bi ñëw reer añ bi noonu reer bi noonu. waaye liggéey bi daal am na njëriñ am njëriñ koo xam ne initiative bi lu ñu ëpp njëriñ amut. di sant waa Touba ca kanam bu baax nag xëy na ndax fekk nañ ñu ñun ndey daara yi ñu ne ci donga yi waaye dañoo ñëw dooleel sant bu baax ndax suñ doom yi ci mbedd yi lañ daan nekk guddi di tawte di dox naaj bu tàng di def tànki neen lépp waa Touba ca kanam dindi na ko bool yi ñëw na fi mu ne dongo bu daw dugg sa kër yaay daara muy taw mm. bu la fa ba sewet nga ŋàbb sa bool reer ba suur te doo dox kon loolu ñu ngi leen ci mm-hmm. di leen ci encouragé bu baax xa baax a baax di leen wax na ñun am nañ xol bu sedd guyu ci waa Touba ci kanam ku dongo yut bool nga fonk ko ni nga fonke yére ngay sol di ko raxasal ba mu set di ko tibbal te xam ne ñii ñun la ñuy defal ñun ñi moom doom yi mm-hmm. ñi ndey daara yi nga xam ne ñoo nekk ci koñ bi doon saytu bool itam ñu dolli mm-hmm. daara ju ju ñu dem bool manqué nañu ñëw wax kenn defalu ko kenn nun ñi lañ ko defal nun ñii di ay jigéen wara a góorgóorlu ci lu baax di ko def te bàyyi leneen lu dul ngeen jàppale nu nag bu baax ndax lii ngeen ñuy def loo tuyaaba la jaamu yàlla la te mënaluñ ko woon suñu bopp kon képp koo xam ne jóg nga jëme nu ci nun nga dimbali ñun nag ñoo ngi leen di sant bu baax nun da sant nañ leen léegi it maa ngi waxaale waa koñ bi ndax léegi bi ma ñëwee toog li ma jëkk wax kii dama ko ne ah, ñun doy suñu koñ ji nday daara yi niñ leen ko sante woon noonu lañ ko defe te noonu lañ ko defe xam naa ne nday daara ju ci sa taalibe guddee sax danga ko ŋàbb ñu yët ko ko kon noo ngi leen di sant te di leen gërëm di ñaan yàlla ci fu ngeen ci toll nag ak ci yëngu bu ngeen ci mante ne ñu di ko yëg ndax ka defuñu lu ko ëpp ndax jàngunu alxuraan lanu war xamuñu ci diine lanu war kon ku ne ci diine jaare leen ci yoonu diine yaanu dimbali kon ñu ngi leen di sant di leen gërëm di sant bu baax euh, ci li nga xam ne si ne moom ngeen ñu defal ci liggéey bu rafet bi yéen waa Touba ci kanam ci ak taxawaay bi bi nga xam ne defal nga ñu ñu ndey daara yi ndax lépp loo xam ne defal ngeen ko dongay rek ñu ndey daara yi ci ñun ngeen di jàppale ñu leen di sant foofu bu baax di leen gërëm ndax ndab yi ñun la waroon tey ñun ndey daare ñun ñoo waroon a jël suñu alal dem jëndale ko yi ay ndab dikk di leen ci tibbal waaye comme que yàlla dimbale nañu ba defal ngeen defal ngeen ni lu mel noonu ñu ngi leen di sant bu baax di leen gërëm waaye ñu ngi sant bu baaxet sëriñ daare yi nga xam ne ñoom ñooñu yoral suñuy doom ba mënuñoo génn ci mbedd yi di def ndek su dul noonu ñoom tamit kenn amul seen fay ñu ngi leen di sant bu baax di leen gërëm ko di di soññ bu baax it suñ jigéen ñi ñu gën a góorgóorlu bu baax ci li ci Touba ca kanam ndaxte mbir la moo xam ne mbir mu am solo la te mbir muy yaata la mbir muy defar dëkk bi la ci 1000 francs yi ñuy laajte ñu gën a góorgóorlu bu baax ci joxe bi ndaxte yaakaar naa bariwut ku ci mel ne ñun jigéen ñi nga xam ne weeru dee dinañ natt lu mat 5000 wala dix mille ci di ko dugal ci loo xam ne amul benn njëriñ kon nag nañ gën a góorgóorlu bu baax ci mille francs yi nga xam ne moom la ñuy laaj ci Touba ca kanam ji di rafetlu initiative bi ak programme bu important bi am muy ndabal daara waa Touba ci kanam taxawal ko war naa def un an et quelque fii ci Darou Minam 2 boobaak léegi nag gis nañ ci yokkute ak taxawaay boo xam ne daal kenn mënu ko mesurer ci dayo bi ak njariñ bi ak avantage yi jur na yu bari waaye xeex na yu bari waaye dindi na yu bari bokk na ci yalwaan ngàbb pot benn pot bi bënn soit du am kibir ñetteel bi euh, léeg-léeg pot bi mën naa euh, na mu war a sete ci wàllu wér-gu-yaram ak yëpp du ci am waaye tam ñu jox la bool boo xam ne wax dëgg yàlla ku ne mën na caa jëfandikoo ku ne mën na caa xéwaloo ah waaye tam loolu bi mu amee ñoom ñu def ko daara yëpp gis ci seen bopp rawat na daar yi nekk ci Daaru Minam de gépp ah su ko defee foofu ñu ngi leen ci sant di leen ci gërëm waaye itam di euh, sant itam ñi nga xam ne ñooy ñooy ñooy euh, ndayu daara yi ci seen taxawaay ndax ñoom wax dëgg yàlla kenn demul ñu des dañoon def lu nu man ci di raxas ndab yi di def lu ñu man ci di ko tibb tibb boo xam ne wax dëgg yàlla dara du ca manqué ngir xale yi bañ xiif ngir xale yi bañ a mar te it bu ñëwut sax ñoom ñuy jox ay jéego ngir di saytu xale bi lu ko tee ñëw bu xale bi ñëw yeexee ñëw sax ñoom ñu tibb ndab bi indil ko seen bopp ci daara ji kon loolu wax dëgg yàlla ay taxawaay yu am solo la yoo xam ne ñu ngi ciy soññ mbokki jigéen ñëpp nag bàyyiwuñ kenn ñu roy ci ñii ko jot a def ah ñi ci bokkagul it ñu jéem cee bokk ñi nga xam ne tey mbir mi yegseegul ci ñoom it ñu préparé ko te bàyyi ko xel te ñaan yàlla mu yegsi ci ñoom ah te kenn bu ñu yegsee ñu bañ a fexe kenn bañ leen cee man wa yut'imuna at-ta'ama ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asiran innama nut'imukum li wajhi llahi la nuridu minkum jazaan wala shukura bon aay boobu ñu jàng rek tey firndeel lii nga xam ne moo ñu tax a toog fii muy Touba Ca Kanam yittewoo gi mu yittewoo wàllu daara wàllu daara ak wàllu dongo dongo yi niñ taa génn dem di yalwaani di def ay waxtu ci bëcc gi wala guddi gi mu fexe ba toppatoo leen toppatoo leen ay ndab ñu ko yóbbu ci kër yi ñu leen cee defal di ko indil loolu mooy njariñal lii nga xam mooy bool yi mooy bool yi ñu ñu séddale loolu itam ñu ngi ci njëkk sant Touba Ca Kanam bi ñuy sante ba noppi di sant dëkkandoo yi ndax keroog ba ma njëkkee dem rek ci ñoom wax gaar leen ndab yi am na ñoo xam ne ci bis boobu ñoo leen tàmbalee ci tib ndab muy muy muy ñëw ba loolu ñoom gis nañ ne jox na ko si seen yitte bu baax a baax ba am na ci ñoo xam ne sax ñoom buñ tiboon ndab li ci ki war a jël si yéex a ñëw sax ñoom ñoom ñoo ko indi indi indi seen bopp loolu it wax dëgg yàlla ñu ngi sant bu baax a baax ndaxte lii dana dimbali dong yi dana leen jàppale seenum njàng ba baax a baax ndax waxtu ñoon def ci àll bi lox waxtu yëpp ñu koy def biir daara ji loolu dana gën a yéwénal seenum njàng dana wàññi ay ay tolof tolof yu bari yoo xam ne dong mën na koo am ci mbedd mi di leen nuyu ci turu Touba ci kanam euh, ca bopp ba sëriñ Habibullahi Mbakke mi nga xam ne moo jiite liggéey bépp waaye ci turu sëriñ Mamor mi nga xam ne moo jiite Touba ci kanam waaye di leen nuyu ci turu commission scientifique et culturelle ci njiitu sëriñ Saalix Jaxate ñoom ñi nga xam ne liggéey bu am solo bii di ndabul daara ñoom la yàlla dogal mu tegu ci seen loxo ñun ñi ñu ne dénkuñu ko muy ab sous commission ñu ànd ceeg sëriñ Basiru Buso sëriñ Alxaaji Jóob sëriñ Sidi Buso ak sëriñ Basiru Buso xëy na ñoom ñëwuñu waaye tey ñoo leen fi wutu mu mel ne sunu tànk yi li ko waral mooy tànki nemmiku liggéey bi nga xam ne Touba ca kanam daf koo sémboon muy projet bu am solo muy ndabul daara mu semb ko depuis 2022 yàlla dogal mu jot koo réaliser ci eh, daarul minan gi ak ndaamaatu jënd ab lim bu takkoo takku ci ay bool lu toll ci quatre mille cinq cent bool Touba ci Kanam jot na koo fàggu distribué ko lu toll ci six mille cinq cent cinquante sept ci ay donga mu liggéey bu am solo boo xam ne comme niñ ko bokk gisee fii ci daara ji ak ci yeneen i daara wax dëgg yàlla liggéey la boo xam ne mi ngi dox bu baax a baax a baax kon dañ ciy sant bu baax soxna yi nga xam ne ñoom bool yi bu defee dara ci seen ndimbal la defee dara ndax Touba ca kanam kat def na effort ba jënd ay bool waaye bu fekkoon ne dafa jënd ay bool yi kese te kenn defu ca dara yi du sotti waaye ñoom bi bool yi ñëwee def nañ effort bu baax di ci def aw ñam di ko jox dongo yi kon ñu lañ leen ci sant bu baax a baax a baax di leen wax na lii xëy na li olof di wax naan wàññi bu nekk day tàmbalee ci benn waaye yéeneem mooy ñu dem ba daara ñu nekk mu defal ko wàññ waaye wàññi bu nekk day tàmbalee ci benn kon lim tàmbalee mooy jënd ay bool bool yi nag Touba Ca Kanam moo koy fàggu bu ko fàggoo ba nopp jox ko euh, ndey daara yi ak sëñ daara yi ñu fexe bay tibbal dongo yi añ ak reer ku ca mën a boole ndekki mu gën a baax di soññ mboole mbokki taalibe yi ak képp kuy dégg suñu kàddu képp ku mën a fàggu ay bool lim bu takk nga fàggu ko jox ko tubaat ca kanam mu jox ko commission scientifique mu distribuer ko ci daara yi. commission scientifique et culturelle bu Touba ca kanam liggéey bu rëy bi nga xam ne ñu ngi koy liggéey ci éducation gannaaw daara tànneef fi gannaaw daara yi nga xam ne réfectionné nañ leen tey ndabul daara ngi nii ngeen gis waxtu yi nga xam ne bi mu jotee dong yu dugg si nañ. ak seeni bool lu toll ci cent cinquante huit daara jox nañ leen ay ndab loolu nag jàpp naa ne yitte la ma Mamor bismillah asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu ma leen di nuyu bu baax te di leen siyaare ñu ko tàmbalee ci suñu daara yi yëpp rek ci turu Touba ca kanam turu sëriñ Abibu turu sëriñ Abdou Lahat ak mbooleem Touba ca kanam gépp baax a baax nag eh, taxawaayu sëñ daara yi ak taxawaayu ndey daara yi ak taxawaayu waa ko waa quartier bi yëpp di fàttali rek euh, lii ñoo ngi ko fi lancé woon daaw jëkk waaye ñëwaat tey ngir waat ko fekk ne mi ngi dox niñ ko soxlaa woon ñu xam ne lu am solo la ndax jur na yu bëree bëree bari wàllu sécurité ak wàllu temps xale bi jàng ba nga xam ne dana mën jàng ci waxtu yu bëgg a jàng te mbedd bi tam sécurité wala bu tawee du mën a dem wuti xéewal yu mel noonu yëpp saafara na ko bu baax a baax ñu toll ci téeméer téeméer daara juróom fukk ak ak lu tegal mu toll ci ñeenti carte yoo xam ne nii jot nañ koo matale fas yéene nag daj dëkk bi yëpp di woo nag mbokki taalibe bi yëpp ñu xam ne mbir la moo xam ne ku bëgg a liggéeyal yàlla ma nga cay jàpp ci wàllu ndab yi ñu koy def ci wàllu ñu xam ne am am nañ kër tey togg ñu gën a fonk yàq bi xam ne kat lii ñuy ku jox yàlla jox ko la gën ndax loo ko jox dana ko ful ay yoon yoon yoon ñu rafet lu baax na taxawaayu scientifique euh, culturel suñu Saliou Diakhate mu ko jiite ak ñi mu àndal liggéey bi suñu Saliou Guèye mi nga xam ne moo jiite branche boobu di branche su ba ndabul daara sëñ Baye Sëriñ ak sëñ Daro mi ñu ñëw tey ci daaraam te fii ci daaraam lañu lancé woon programme bu njëkk bi kon bu doxee rek barkeel barkeel la kon yàlla yàlla def mu gën a barkeel ñu gën cee am ngërëmu sëriñ bi daara yëpp nga tegu ci yoon gone mën a jàng jàng mu ànd ak économiser temps jàng mu ànd sécurité jàng mu ànd ak lekk-lekk sell te lii lépp moo koy dimbal bu njëkk daa gis kat dañuy ñëw ci kër dañuy tibb lekk ba ba des ba desal tibb jox la mu ànd ak mu ànd ak yax yax yeeg lépp di def mel ne mu day ñëw yekkal la tegal sa ndab boo demee mu nekk ñam mu sell ñam mu mën a jëfandikoo kon daal ñoo ngi ciy sant bu baax a baax ñëpp rek ñaan mu law dëkk bi yëpp yàlla def ñu fekk at yu bëree bëri te am ci ngërëmul Sëriñ Tuubaa waa ko jërë ngeen jëf bi liggéey bii réunissement loolu wax dëgg yàlla woyof na ndax xam na ne sëriñ sëriñ bee ci suñu kanam waaw tey barakat yi barakat <laughs> dal na ci bu baax a baax xel lépp liggéey bi sëñ Tuubaa rek la te te jiitu na leen ci lu ma a fag fàggu na ko lu mat a ñaan boromam ñaan na ko boromam te mayoon ko kon nag da ngeen di sant yàlla rek te it gën a nag soññu seen bopp mm. gën a soññ yi taalibe yi ñu ngeen ci am lu ngeen ci man rek ba ci am la ko ci man yii ba soññ leen ñëpp ñun ma ko mayoon da ngeen may sas ma def sas wala yàlla sas du koy yàlla sas moom caaxaan du ko def caaxaan mm. du ko mm. Mm. da tomb daam la ci yéene jiw ma sëkk ju wér eh, parce que bu mat bu wér yitte ju Euh, taxawaay bu dëgër luy euh, mëne su hmm. loolu moo ne ci yéen lii xel xel xel xel mu ko xalaat képp fa tabarakallahu euh, xel mu xel mu doon kon suñ taxawaay bi xel mën na ci daal bu baax a baax a baax ndax naa ne ci fàggu sëriñ bi rek da ngeen am taw feex bokk ci fàggu sëriñ rek eh, waaye ngeen ngeen ngeen ngeen gën a xam loolu nag xam ne xam ne xam xam ne du dugal leen seen bopp. waaw kon bu leen ci dese dara. joxe leen ci seen boppam jeex tàkk waaw eh, liggéey bu rëy hmm. xam benn liggéey ëpp. Hmm. benn liggéey bu ñu sémb bu ñu a ak ko mën a sémb rek mun hmm. ko ëpp. Eh, loolu seen ci ci ci yéene yeeg posté bi ak yitte ji rek ci la ci. wax rek. bëgg nga dimbali ñu ndax da suñ tuwi dafa ci mag ñi daal daa bëgg yëf ñu ñoom suñu ndaw ñi waaw nga def ñun ñi rek ñu jëkk ndigal waaw yaa leen tànn loolu ñaar waaw def ko ci boobu alhamdulillah loolu doy na